mooy sunu gaal te jujul ne tësin dëggal ma bësin bëgg naa leen tey Sénégal dëkku gay ne mooy sunu gaal te jujul ne tësin dëggal ma bësin animateurs c'est DJ Eduardo on the quand elle me prend dans ses bras elle me parle tout bas je vois la vie en rose mots d'amour, de tous les jours, et ça fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une barre de bonheur, dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit la jurer pour la vie. Assalamu alaikum babies ease represent Joel Kumba Edouard Luna dikk naa yegg si naa dama ne bët sebeti naa candeeru jant bi ci Bond FM bi dañu ma xeeb lu tax lu tax a tax dañu ma yàgg xeeb lu tax. wey don't know me why. why oh why oh don't know. love that sound in the rap, rap, rap. On the mic, on the mic, on the time, my love. To find my soul good, I love girl. Sound is the music for you. Fresh, fresh, yo, you don't stop. Carry west one, bad boy. Yo, push, break it down. Remember, right now you can. Since two years, I live on the street. I get no living. Two years before I get peace in the home, and remember, two years before. bounce baby. fii faa bële ba mu leer ma ne fii la yow la lu grave lu grave yaa ngi faa bële don't wanna me baby. ay ay bu fa. ga ay ay. ga xajal doon gendarme ba lu ko neex marqué ey pii vivi yaay soos waaye ngi gaay ku mu neex gël man Mati Papa bu dee baat bu neex li ngay xiis dina jàng de xanaa bitim kër animateur yi bële la ñooy ànd ak musicien nay riir a riir ah nay riir a riir waaw ay jaabar nañ di ko mooy tutam nga juba bi Si on t'attaque, venge Man baab damay animé di wéyal daal soxna Jaara ani Viviane lii kër gi lii kër gi aca merci e bienvenue sur la télévision Futur Média di leen bëggee waat bu baax yeewu ci euh, suba si ak yéen euh, waxoon nañ leen ko alxamis bu nekk tous les jeudis on se réveille mais avec beaucoup de rétro beaucoup de souvenirs ce matin on vous accompagne ba boori 11h tey ci suba si am mbégte bu euh, baax a baax di gërëm également ñi ñuy suivre si suñu ay plateformes yéen a ngi ak ñun ci Facebook bi ci YouTube bi et cetera xam ngeen ni on est très digital ñu àndaat ak yéen ci seetu matinal je ne serai pas seul sur le plateau dina ànd tout à l'heure ak Mado euh, qui sera avec nous xam ngeen ni moom nag heure bu yegsee dafa am lu ñuy andil donc dina am fu ñu dem tey euh, ci euh, suba si dinañu recevoir également suñu invité ci deuxième partie bi ku ñu naw lool ci wàllu musique ku ñu naw également ci culture sénégalaise ni mu koy défendre ak valeurs yi nga xam ne moom moo ci nekk yàgg ci lool également il a sorti récemment un projet boole kook événement bu muy dég bu muy dëgmal dinañ ci ñëw ci kanam tuuti il s'appelle Youssou Dieng c'est un artiste complet bu nekkee nag ci euh, li mu nekk nii c'est normal ñu ñu ñu ñu topp ko ci euh, bëgg a xam également euh, lan lay waajal ce sera dans quelques minutes léegi léegi ñu tàmbali ak yéen c'est toujours un réel plaisir de partager ce plateau avec Mado que j'aime que j'adore tellement <laughs> bonjour c'est réciproque euh, alors ça tey mon coup de cœur ci télévision Futurs Médias <laughs> mon bonheur comme Pape Cheikh dem na naaf saay na mais ça m'a fait du bien de le voir dans la vidéo que je regardais tout de suite mais bala loolu rek euh, maa ngi leen di nuyu mbokku téléspectateurs yi ku ci nekk sa tur ak naan leen mbégte la saa su ne ànd ak yéen ci li nga xamante ne moom moo di seetu bi matinalement aujourd'hui on est avec Kals bàyyi ko mu dérouler et puis on va l'accompagner et avec beaucoup de plaisir jeex na noonu la ñuy tàmbalee ak gërëm bu baax équipe technique bi ñu àndal ci euh, suba si xam nga nag Euh, yeewoo tuuti ak ay souvenirs dafay neex. ah y avait un projet bu intéressant boo xam ne Mado amoon na fi jamono yële weesu. Mhm. Euh, euh, initié par l'artiste Viviane. Mhm. à l'époque avec la maison de production jolo Jololi. Mhm. ñu dajale woon nag artistes yi boobu ñu dajale woon animateurs yi plutôt ak beneen génération des animateurs. on se rappelle de Amish de Nicolas de Nadia de Pape Cheikh Diallo et cetera Edouard Adama Ndiol Kumba Rest in Peace ñu ngi koy ñaanal ak ñeneen ak ñeneen ñoom Cheikhou j'aimerais DJ chante et puis ñu dellu C'est elle pour moi, la vie. Elle me l'a dit, la jurer pour la vie. Salma alaikum babies ease represent Jol Kumba Igwar na una Tukka na yegsi na dama ne bët sabati na jant bi ci Bond FM bi dañu ma lu tax lu tax a waaye ngi nii ku mu neex gël man Maty Papa bu dee baat bu neex bu dee feeling baat kandaw ta xamu la xiis gi ngay xiis dina càggale xanaa ki tim keew animatrice bala la ñooy ànd ak musicien nay riir a riir ah nay riir a riir waaw Nende ko cuba mooy tutam nga déggoo ñàppante mooy saxal cuba bi bi si on te tape venge-toi man Pape damay animé di wéyal daal soxna Jaara ani Vivian lii kër ge lii kër ge lii kër gi laa voilà c'est avec beaucoup de souvenirs ce matin ce titre DJ chante et puis nous rappelle ku ci nekk nag dañ ci amoon sa animateur préféré à l'époque xam nga ambiance yi lu tax mu neexoon ñoom ñëpp dañu nekkoon au devant de la scène di mm. accompagner di gunge artistes yi nekk sur la bande FM di accompagner et puis à l'époque Euh, dañu xamoon euh, vraiment euh, valeur u artistes yi artistes yi tamit di delloo loolu animateurs yi c'était vraiment bien eh ay waaye une très belle vidéo moo tax li ñu naan tout le temps les bonnes choses restent mhm. et boo koy xoolaat aussi tu es rempli d'émotions et puis tu vois que la collaboration qu'il y a entre mhm. les acteurs de la chanson je veux dire mhm. les chanteurs et les animateurs c'est collaboration boo xamante ne mhm. dafa yàgg parce que ku ci nekk jàppalante la je pense que animateur bi mhm. moom mooy euh, visualiser wala porter li nga xamante ne moom moo di visibilité son bi mhm. et je pense que ça a été une très belle collaboration et li ma ci aussi mooy je pense que ça continue ba tey parce que quand je vais un peu sur les vidéos de Carlou D je pense que tout récemment et puis il def benn vidéo dem seetiwaat mais quand même si je reviens sur cette vidéo uh-huh. nekkete nag yenn animateurs yi ñu kàcc. yàgg nañ doon ay ah. <laughs> et puis voilà ñu ñu ñu def ko ak fun ambiance bi nice. Mmh. ça montre également que voilà artistes ak yi benn lañ. di leen ah. di nuyu de passage parce que am na ñoo xam ne euh, ba tey ñi ngi fii di continuer liggéey bi ñeneen ñi ñu ngi ci yeneen activité mais am na ñoo xam ne ba tey ñi ngi fii euh, di wéy liggéey bi mais suñu xel dem également ci Edouard Adama Ndiol Koumba bi nga xam ne il a fait beaucoup de choses mmh. ci milieu animation rest in di ko ñaanal fi mu nekk gënal ko fuuf ah. euh, fi nga xam ne fi la jóge alors on continue avant ñu recevoir suñu invité mmh. Euh, comme ci ay souvenirs la ñu nekk on va se rappeler tout de suite d'un autre titre euh, celui de Pape Diouf Partira regardez leen ko partira c'est un excellent titre mi ngi bokkoon également ci production yu euh, Prince Art vous savez que euh, bokkoon na ci artistes yi nga xamante ne liggéey nañu bu baax ak moom Pape Diouf sur ce titre mm-hmm. euh, di ci nuyu bu baax également Serigne Modou Mbeng voilà di ko béggee bu baax a baax ainsi que madame Mbeng ak la princesse Serigne Modou décembre c'est demain toi tu comprendras mais maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la béggee et puis mi may signaler mais est ma est-ce que gis nga passeport Pape Diouf ci <laughs> mais Pape Diouf euh, ça prouve également que mhm. mhm. booy gis lii ngay xam ni ils ont mhm. beaucoup travaillé euh, de xam naa naa ci waxtaan ak Youssou Dieng ci kanam ah parce que dégg naa ko euh, muy wax ni xale yi dañu war di jël ci référence ci ñi fi nekkoon parce que il est important de beaucoup travailler dans la musique comme ni ñu koy waxe baat dañ koy sàmm il faut nga am benn hygiène de vie boo xamante ne macha allah et je pense que ni mag yi njëkk yi wala artistes yu njëkk yi doon évoluer avec cette nouvelle jeunesse il y du ma ne euh, peut-être dañu je pense que mouvance bi le mhm. buzz bi mhm. ba parfois euh, ils ne font pas trop attention à leur carrière et bu ma ne carrière maanaam je me dis que nit tey bu génnee dara war nga projeter li nga mm. xamante ne moom mooy avenir bi et surtout rester sur la même euh, longueur wala constance bi may wax comme par exemple tey boo xoolee ay Youssou Ndour ay les anciens je veux dire mm-hmm. tey sax ba ci Pape Diouf parce qu'il n'est pas si ancien mm-hmm. mais cette constance est restée mm-hmm. saa yu génnee que machallah sa voix a amélioré acquérir de l'expérience et toujours tu sens que am na lenn une touche bu yokku mhm. te une touche boo xamante ne mooy bu bu set bu leer donc je pense que cette nouvelle jeunesse là ils doivent faire comme eux quand je parle regarde un peu Wally aussi ouais, ouais, ouais, c'est un peu sur cette sur constance donc xale yi je pense que am nañu important li ñu ci war a jël bëri na euh, au-delà de aspect musique bi. Mhm. Euh, y a le texte également. Euh, mhm. plan de carrière bi comme ni nga ko waxee am hygiène de vie bu baax parce que artiste. Mhm. n'est pas une personne ordinaire. voilà dafa am lu lay différencier un peu ak ñi nga xam ne ñoo lay seetaan di la déglu. et c'est important bu la suñu borom defee artiste nag da nga koy xam wala jéem a doon ndaanaan. <laughs> parce que ndaanaan la ñuy bëgg doon ñoom ñëpp. ñu ngi leen di nuyu dinañ ñëw également tout à les événements très attendus gis naa ni week-end bi ñu jëm riche na en en sport. Euh, ñi ngi waajal combat bu mag ci weekend bi c'est un événement boo xam ne ñi ngi ci ànd ak Alburax ak télévision Futur Média mm-hmm. euh, dinañ ci ñëw euh, ci kanam comme vous le savez quand c'est important ça se passe ici voilà les grands événements c'est avec nous moo tax ko dund ci weekend bi muy ci rajo bi ci mm-hmm. télé bi ak suñu plateforme yi nga xam ne mm-hmm. am nañ ko donc Mado ñi ngi nuyu bu baax également ñi ànd ak ñun ci page Facebook bi effectivement donc il di encourager bu baax a baax comme on leader en Afrique sax je dirais donc ku mel ne ay Moussa Sabali Ahmed Fall Aminata euh, Sala Babacar Sow ñoom ñëpp ku ci nekk daal ñu ngi yónnee ay messages et puis vraiment ils sont très euh, contents et très scotchés euh, comme ni ñu koy waxee rek vous faites partie aussi des téléspectateurs de la télévision Futur Média ba tax na ñu ngi leen di big up j'en profite parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure ce matin mhm. je voulais féliciter sunu ay collègues yoo xamante ne mhm. ils sont au niveau de la rédaction de la télévision Futur émission matinale bi am j'ai reportage Infomatin. que mm-hmm. si je me trompe il a fait mmh. donc dem def benn reportage fi nga xamante ne moo di Tasset mm-hmm. Tasset on se rappelle il y a pas longtemps benn tracteur ay xale yoo ne mm-hmm. je me dis très inconscient peut-être yaroo sago doon foo ak si li nga moo di seen gros porteur dem ba malheureusement euh, faat ay xale yoo xamante ne dañu jóge bi donc il est parti ba Tasset et il a fait un reportage qui était très émouvant je voulais m'arrêter l'encourager et le féliciter. Oui, oui, oui. C'est un collègue, il Parce que de fois, là, nous m'a marqué que depuis qu'il y a eu l'incident, il est allé chercher hmm. des psychologues. yoo ah. xamante ne j'ai même des émotions mu accompagner xale yi pour euh, xam nga te xale yi soxla woon di nettali loolu mhm. euh, y a une même qui s'est braquée nee na du jàngeeti donc je pense que aussi nit yi nañu gën a def attention di dal di comme ni ko sunu papa Thion mhm. wayee woon ah, oto malaaka la donc euh, daw nank dal dal ça je voulais passer ce message ça c'est un vrai travail bu bu lu journaliste war di def mhm. xam nga wàcc sur le terrain faire des reportages je pense que c'est ça qui fait la différence donc di ko féliciter li nga c'est important euh, s'il y des événements ñu mën a gën a xuus ci mbir yi gën a mën a comprendre avant ñuy recevoir suñu invité ba tey 10 euh, heures passé de quelques minutes euh, ci souvenirs yi ba tey balaa ñuy jeexal euh, ni ma xalaatee góor ñi ci suba noonu laa xalaatee jigéen ñi alors c'est rappelle beaucoup de souvenirs ak pas de danse yi voilà xam nga nag à l'époque bu ñu daan génnee ay titres dañ koy accompagner ak ay fecc danaa saareel gis ngeen ko tuuti Pape Samba wan na leen ci voilà donc ñu leen di béggee bu baax c'est groupe voix flash de Thiès Euh, ki ngeen ci dégg noonu moo di Massané créé depuis 1990. Mhm. Euh, le groupe n'existe plus mais ku ci nekk yaa ngi def sa ay carrière solo on a vu Massané au niveau international récemment ñëwoon na fi pour sortir en single. Mhm. mais on bon xamuñu lu tax groupe bi ba tey continué wul mais euh, fàttaliwaat nii ñi ngi bàyyeekoo Thiès di leen nuyu bu baax a baax comme ni ma ko waxee tout à l'heure c'est toujours un plaisir non seulement de partager ce plateau ak Mado mais keneen koo xam ne fekk si nañu te ngeen min ko bu baax a baax Awa Gaye bonjour salaamaaleykum. maaleykum yi. alhamdulilah mais moom ni may woowee Kals moom rek moom ma koy woowee Kals. <laughs> yeah I like it you know Kals because uh, <laughs> it's really a pleasure contentement bu baax. Uh-huh. Uh, je pense que bi ma première fois ñi bokk. ñu jox waaw c'est vrai en plus. ah bah oui am naa TFM presque quatre ans. dëgg la you know uh, ñu ngi soog a bokk plateau. dëgg la dëgg la ma doon always look forward to ñu bokk plateau because gis naa am um, li ngay dégager positivity. Mm-hmm. professionnalisme et puis ñëpp dañuy nekk à l'aise mën a wax ak yow <laughs> waaye toujours avec ma soeur ma grande ñu bokk li nga xamante ni mooy euh, seetu bi mm-hmm. euh, kon boog euh, Kaos tey dañu yóbbu flashback waaw noo gisee souvenirs yi bi nga bi ngay ubbee nag mooy bi nga xamante ni Viviane daf ko defoon ak DJ yi non mu nekk loo xamante ni oh my god dafa dafa dafa rafetoon mm-hmm. because um, ñëpp dafa mel ni comme ku nekk képp koo xamante ni parce que tey artiste bu fi dem ba nekk an artiste animateur yeeg DJ ak ñëpp jàpp nañ nga xamante ni mooy sa carrière donc man dama jàpp ne rek na son boobu noonu c'était pour euh, dire merci et aussi pour wane ne ñun ñëpp ñoo bokk li nga xamante ne mooy kii et Pape Cheikh si son boobu j'étais petite macha allah <laughs> macha allah et ça te rappelle des souvenirs yow of course ah. man Viviane lu mu a def laaj ma ko ma wax la ko ah bon of course li xale yi naan kon da koy topp kon yaa ngi koy topp moom jeex na alors ci kanam yi comme ni ma koy waxee depuis tout à l'heure dinañu recevoir Youssou Dieng euh, Mado Youssou nag daanaan voilà ci ci wàllu musique euh, ci kanam tuuti dinañ ko dalal et dinañ wax ci euh, projet bu am solo bu mu génnee boo xam ne en terme de musique soo ko dégloo ci es tellement satisfait mm-hmm. euh, parce que ni ñu réaliser cette cette production mm-hmm. dinañ ci ñëw laata loolu également fàttaliwaat leen nii ñu proposer leen un dernier titre de mm-hmm. rétro ah ñu joxaat leen benn Papa Thione baax na ci yen Papa mmh. Thion. of ah. course ah. Papa Thion. Papa Thion baax na ci yéen de ah. of course ah. Eh, eh, ma nag ça di dit. Oh, jigéen day bari kersa. waaw gis nga. Oh aw sàmm jox ma loolu ñu xool. te <laughs> bëgg dafa bokk ci euh, qualité yi ñuy taamu ci euh, jigéen c'est tellement important ces titres yi ñuy fàttaliku ci suba si parce que euh, message bi nga xam ne moom moo ci nekk et puis non seulement dañuy sensibiliser Thion moo ko waxoon waaye moom bu yeetewul déglewul rek ay naxaate la et ça se voit sur ces titres de Thion Balago Seck n'est-ce pas ah right comme ni ma koy wax rek ma ne imaginal woy bii nii buñ ko bu ko bu ko Thion di woy xëy na sax juddoo gu ma woon ba tey yàlla def li nga xamante Euh, mu nekk loo xamante ne presque moom la ma ñëpp xàmmee euh, di ma ràññee ma ko mooy célébrer euh, mm-hmm. sargal jigéen wan jigéen fàttali euh, suñu bopp ñu ni tamit euh, suñu dayoo ci àddina euh, mm-hmm. nu ñu nu ñu toll comme ni ko coon waxee est-ce que mm-hmm. ñun xam nañu suñu bopp because ñun ñooy àdduna mm-hmm. fii lu fi rafet ñun ñoo ko rafetal lu fi dem safaan wa aussi ñun la ñuy joxoñ baaraam kon boo ko jigéen kon ñun macha allah yàlla daf ñoo teral ba pare soo dañ koy gën a gaal di jàpp rek di gën a jàppante di gën a salibrétante macha allah important toujours Euh, le message ci texte Thione Ballago Seck yooyu il est exactement 10 heures passées de 37 minutes euh, ñu leen di gunge ba tey ci euh, suba si Mado Euh, je disais tout à l'heure à chaque fois bu ñu la plateau on sait que mhm. euh, dina neex mais dinañu jariñ également joindre l'utile à l'agréable euh, ci suba si fan nga ñu demaloon effectivement Kalza comme ni nga ko waxee cette fois ci nag dañu demoon ba fi ne moom moo di parcelle côté ACAPES donc mu am nag benn association wala fonds de solidarité islamique qui existe depuis plus de 30 ans ñuy abattre nag benn liggéey boo xamante ne machallah tout le temps ci luy dimbali doomu aadama cette fois ci ils ont fait wala dañu organiser benn journée depuis jëm ci li nga xamante ne moom moo di wàllu octobre mais li ñuy je pense que dañuy dem xoolee élément bi comme ça di a mën a comprendre tamit yéen ñi ñëpp ñi ñëw wuy si fons sénégalais de solidarité islamique ci tey journée de consultation gratuite bi ñoo def tey ren dañu ko def bañ ko génne ci biir mois d'octobre oh, ñu koy wax octobre rose xanaa feddali rek ndax mën naa ne la l'année fii dañu fiy consulter dispensaire la bu nga xam ni Fonds de solidarité islamique ubbi na ko depuis 1992 kon boog mu ngi ci 31e année mu nga jëkkoon nekk fële ca HLM Grand Médine gannaaw gi lañu ñëw toxu si fii euh, ëpp na fukki at dispensaire bi nag ah dafay fonctionner toute l'année am ay service su médecine générale li tax nag ñu def ko yaa yaa trente ans valable na ba tey maanaam dañoo bëgg sunu mbokk yi néew doole mën a faju ku ne xam na ne paj dafa am un coût métier itam tam comme xale yi gën nañoo bare métier yi dafay war a diversifier te ñun am nañu sunu terrain fee ci Patte d'Oie commencé nañ ko sax tabax am na lu fa nekk yàlla mayoon nañu ay membres yoo xam ne dañoo nekkoon ay ouvrier yore seen i entreprise yàlla jëlee na leen fii waaye ñoo ñu seen njaboot yi ba tey ñu ngi taxaw ak ñun ci taxawal centre de formation professionnelle boobu. Euh, foo bi nag ñu ngi tàll loxo àdduna yëpp tey. lenn la ci programme fond bi muy octobre rose bi nga xam ne chaque année dañuy góorgóorlu lañ ca waa LISCA di def ñun tamit ñu ñëw jàppalante ak ñoom moo tax tey ñu ubbi fii ci centre bi woote fi dégustation boo xam ne képp koo xam ne tey egsi nga fi tey seet nañ la lu ci war ci yow ñu def ko ci incha allahu taala te day am suivi. ndax loolu moom dispensaire bi dafa nekk loo xam ne moom day ubbi vingt 24 heures sur 24 fii ci Parcelles Assainies fond bi nag liggéeyam mooy lépp rek lu jëm ci luy jëmale réew kanam moo xam njàngale mi la moo xam faj mi la moo xam euh, formation professionnelle la moo xam dimbali aji néew ju doole yi la àdduna nag nii la jaar sadaqatun jaariya fu bi ñuy wax ne nit ñi nañ ci góor góorlu defal ko seen bopp dawal ko ci seeni bàmmeel ndax bàmmeel kat ay la yéwén bagage accompagnant amul mais dangay ngay fret bi nag yàlla borom bi subhanahu wa taala dafa wax yonent bi su nit génnee àdduna léppam dagg na ba mu des ñett yi bi si njëkk mooy doom ju baax ju lay ñaanal doom nag bala laa mën a ñaanal day xam diineem moo tax ñu gën a góorlu si njàngale mi Mado mu mel ni lu lu am solo la effectivement lu am solo la ñu des rek ci message bi nga xamante ne euh, soxna Fat Bintou moom la wax maanaam euh, nit daal booy def na nga def lu baax liggéeyal sa bopp jëf li nga xamante ne moom moo di sa bàmmeel maanaam ci naka mooy jëf yoo xamante ne jëf yu baax yoo xamante ne ëllëg euh, dina la mun a fekk fi nga xamante ne moom moo di yewal fi am yàlla na yéex donc mu nekk comme ni ma ko waxee benn fonds de solidarité islamique qui existe depuis plus de 30 ans mais mu nekk fonds boo xamante ne day exceller ci ay actions yu bare yemuñu rek ci li nga xamante ne moom moo di c'est après côté social bi le mooy côté euh, tey li nga xamante ne moom la ñu organisé woon mooy cette journée euh, de consultation gratuite lu jëm ci wér gu yaramu jigéen mm-hmm. rawatina ci cancer bi nga xamante ne nekk na cancer yoo xamante ne mm-hmm. li gën a bare moom mooy faat jigéen mooy bi nga xamante ne moom moo di le cancer du sein wala beneen bi laal euh, sunu butitu jurukaay moo di le mm-hmm. col de l'utérus mais dañuy exceller aussi ci wàllu jàng dañuy def lépp loo xamante ne aussi day dem ci wàllu liggéey et tout ça ay formation donc vraiment donc je jàppale macha allah comme ni ñu ko waxee sumb nañu nag benn euh, centre de formation professionnelle bu ñu bëgg tabax ils ont commencé déjà euh, tàmbali nañ tuuti te bu ñu leen dimbali woon aussi dinañ leen ci gën a euh, jàppale. Mm-hmm. nit yi ñi nga xamante ne ils ont les moyens jàppale leen ñu eggali ko parce que ñii du naxee saay ça fait 30 ans donc li ñu def lu ñu. yàgg na mm-hmm. voilà te comme ni ñu koy waxee pour jàppale encore nit yi ñu jàng parce que ce sera un centre de formation mm-hmm. professionnelle peut mais déjà faut savoir que ñoo ko tabax donc bi ñu demoon nii ah, ñu ah, ko tabax mu nekk fee nga xamante ne moom moo di parcelle côté ACAPES mais liñ ci mën a jàngat donc te la journée rek mhm. bi ñuy def mais les consultations continuent c'est ce que je voulais demander voilà. est-ce continue toujours mm, jour boobu c'était gratuité la woon mais teewul mën nañ dem toujours ànd ak waa LISCA parce que mhm. ñoom tamit dañu lëkkaloo ak waa LISCA mhm. ñu dem def li nga xamante moom moo di saytu seen yaram bi nga xam ne moom moo ci nekk mhm. je disais tout à l'heure Awa Gaye ne que social bi seetlu nañ ni léegi Sénégal mhm. li ñu koy def dafa bëri euh, te askan wi aussi am na ñu ko soxla euh, am na ñu ko soxla cause mhm. euh, ba tax na ñun ñi nga xamante ni yàlla dénk nañu benn wala ñaari nit xam ñu mu am rôle bu important boo xamante ne dañu ko war a jouer si société bi boo xoolee ku si mel ni suñu yaay ji yaa Seyda na Faat Bintu taxaw na ci li nga xamante ni parce que Kaal kenn mi ngi xool Awa mu bëgg na dégg Awa Gaye wax benn wax wala mhm. def benn jëf benn jëf nga xam ne dina ko njëriñ mhm. euh, kon boog taxawaay euh, ki nga xamante ni mooy euh, suñu yaay ji mhm. ak yeneen nit yoo xamante ne ñu ngi taxaw di def social ndaxte social joxe la te joxe su xol lay jógee ko kenn mënu koo forcer da nga koy def te yàlla tax kon boog ñu gën a continuer ci li nga xamante ni mooy da fight lu tuuti tuuti ñun fa ñu ngi def suñu wàll ñu tamit di fësal li nga xamante ni ñu def kon boog wér gu yaram lu lu jara sargal la voilà. Ah. vas-y oui Kazoum je voulais juste <laughs> remercier ñi nga ma defal reportage bi quand même mhm. euh, donc par rapport au montage monsieur maa ngi koy nuyu bu baax a baax Ibrahima Faye ak ki nga xamante ne moom moo di Serigne Mbacké Seck donc mhm. maa ngi leen di remercier et puis un gros coucou Tata Ndeye Khoudia Diokhane moom na moo njëkk wax maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak ki nga xamante ne moom moo di Khady Diallo parce que association bi sama turandoo Adja leen Dieye mi ñuy jooy te noppeeguñu yàlla na ko yàlla xare àjjana doon Euh, soxna ci ki nga xamante ne moom moo di docteur Samba Diallo moom itam euh, vraiment def na ci ay action yu bare donc vraiment ñu ngi appelé waat nit yi ko doon jàppale mhm. donte nekkatu fi mais association baa ngi fi wala fondation bi ñu dem def liñ doon def Moustapha maa ngi koy nuyu muy mu lay nuyu de passage nee naa chaque fois que je vois Mado mhm. euh, ci yenn yi muy def day dem ci yoo xamante ni xëy na duñ ko ci xaar mhm. il se rappelle de maire bi doon jaay yi nga doon def ci euh, weekend start et cetera xam naa dafa dolli si rek si li nga def nii tey mhm. moo tax mu signalé ko pour di la di nuyu donc il est important de temps en temps ñu dem comme ni ñu ko defee ce bu ñu gisee yu leen di intéressé ñu leen koy jox Awa Gueye quelques instants dañuy recevoir Youssou Dieng mhm. euh, comme je disais tout à l'heure moom nag day waajal guddi goo xam ne pour waa Ndakaaru la mhm. voilà raison pour laquelle ñu euh, woo ko mu nar ko def di ci rendre hommage hommage nag euh, Lamine Nar Diop dinañ ci ñëw El Hadj Lamine Nar Diop donc ñu seetaan son euh, le dernier titre de euh, Youssou Dieng c'est une un extrait de son dernier projet le temps ñu recevoir ko sur ce plateau regardez ku amoon li nga am mbaa ku xam li nga xam du ma li nga mën ndax du doonu maya maam Abdu sa tur bi daa saf ni leen sa jëmm du saf bi da ci suñuy xool fu ñuy ñun fu ñuy jëlee te daa mbokk soxna Njaay fu ñuy te da tapas yeeyu yi sa yaay ambonko yi sama ambonko soxna njaay sama njaay faama baayu pap man suura keeno baayu mu kal suum tabara man soxna kan doom si fu ñuy jëlee soxna yoon fu ñuy jëlee tee arambonko soxna njaay fu ñuy jëlee tee soxna alors El Hadj su jeng moom moo ñu fekk si ci euh, plateau bi waxtaanee euh, ce titre waxtaanee également projet yi mu nekk moom nag euh, xëy na surprise la ci ñenn ñi mais ku ko xam xam ni wax dëgg yàlla artist la yàgg na ci li nga xam ni moo di jëmmal musique sénégalaise au niveau même international suñu borom def mu liggéey ak ay artistes yu bëri bi ñu ci mujjee xam rek mooy accompagné bi nga xam ne mu ngi koy gunge Wally Seck laa nag mu dëgmal ci carrière boo xamante ni daf ko relancé waat. artistiquement euh, génne en benn EP boo xam ne dinañ ci ñëw ci kanam tuuti euh, El Hadj ñu ngi lay nuyu bu baax am mbégte euh, dalal la ci télévision Futur Média. jërëjëf Kals ah mon ami et maa leen ëpp mbégte ci teew ci émission bi nga xamante ni. dama toog di di bég quoi <laughs> ndax li tax may bég mooy le fait que nga am courage dellu ginnaaw dëgg la xam nga ñun Sénégal duñu dellu ginnaaw dëgg Sénégal rek la artiste di xew yi mhm. c'est dangereux dëgg <laughs> mais maa ngi nuyu euh, téléspectateur yu TFM yëpp ah di ma Mado sama jigéen ah yi ma fi fekk ñu am maana ñu mhm. la gunge ci émission bi dina wax ne chapeau jërëjëf ndax euh, la musique sénégalaise euh, presse a ko war a jaay dëgg la mhm. bu ko war a jaay TFM ci jiitu ndax musique a jur TFM. jërëjëf dëgg la ah. dëgg la. muy nuyu euh, directeur général président directeur général. Mhm. Youssou xam ne kilifa la ci man. jërëjëf ah am fu ma teg fonk ma loolu bëgg ma. Mhm. dañu daje Tokyo. Mhm. ne ko lenn rek laa mënul nangu. le fait que TFM amul émission musique. <laughs> waaw du dëgg du yoon. dëgg la waaw TFM mooy këru musique. Mm-hmm. donc lii euh, initiative bu am maanaa la. jërëjëf li neex mooy li nga dell ginnaaw. Ah, la base de la musique sénégalaise. nga gis ngay teg ay Thione Seck ay Kayfone ma. Mm-hmm. c'était vers les années quatre-vingt-dix. Mm-hmm. ah te. di déglu lii rek doy na jàng wala. dëgg la doy na jàng musique. dëgg la ay valeurs ay valeurs yu am maanaam texte yi nice musique bi simple. Mhm. waaw musicalement c'est c'est voilà c'est ah léegi yëf yi musique tuñu dañuy sabaru. arrangement bi bu dee arrangement bi. waay ah, ah. te te lu riche la lu rafet la. ah ngay dégg ay texte di dégg instrument di dégg mélodie. ak harmonie yu amul fenn. donc la musique sénégalaise ah. nañu dem am na richesse ah am na fi ne euh, richesse bu ñu am amul ci àdduna. mais euh, par rapport ak loolu dama ci bërëb sax benn question. mooy li nga wax nii est-ce que léegi peut-être li ko xale yi di defee nii. c'est pas parce que peut-être dañuy gën a préparer seen carrière internationale wala mun nañ def cette musique bi ngay wax nii soft te dina leen jëriñ pour seen carrière internationale. waaw xam nga xam nga xam nga Madou musique mm-hmm. communication. dëgg la xam nga ñun ñi ngi fi nekk ñun ñeent ñi di waxtaan. Mm-hmm. mais bu ñu sorxo sorxoo wax ji kenn duñu dégg. te li ñuy wax téléspectateur dañoo couvrir dëgg walaay dëgg la donc musique bu ñu demee ba déggatuñu da ngay gis instrument ne ci kaw seen nga toog di ko déglu doo déglu doo ko dégg dëgg la donc loolu leneen la mhm. donc communication boobu nga xam ne team la team bi ñu koy def ñëpp guitare solo bi dañ ko war a dégg accompagnement dañ ko war a dégg basse dañ ko war a dégg est-ce loolu moo doon tax ñu daan am chef d'orchestre mais chef d'orchestre ak ak ak ak compositeur mhm. parce que musique dañ koy composer. arranger ko. Mhm. arranger ko. dëgg la. Mhm. créer ko structure. Mhm. yoon bu muy jaar. donc pour pour pour am pour am une une bonne musique. macha allah pour am euh, musique bu jaar yoon. il faut que ah il faut il faut que yëf yi yëf yi yëf yi jaar yoon. yëf jaar yoon comme dem nañ ba kilifa amul moom. <laughs> affaire yi jaaree fu de euh, côté kilifa boobu noonu euh, la moo ko changé yow c'est ça euh, en tant que spécialiste émergé. waaw lu ko changé mooy. Mhm. xale yi dañu bëgg tari te jàng. Mhm. Ah, dañu bëgg tari te jàng mag ñi tamit defuñu. translation bi quoi xam nga mag ñi tamit moo tax damay wax chaque jour barki démb laay wax mag ñi duñu gaaw a bàyyi yooyu. dëgg la parce que. relève bi assuré relève bi moo Alaaji Badara Mbaye Kaba dafa xëy rek na bàyyi naa woy mhm. ñu ne ko li tax mu ne eh, Ablaye Mbuub mi ma dégg. Oh. ndeysaan sama xel dal na ci moom. dëgg la Ablaye Mbuub Ablaye ndem si yàlla si gis Thione sekk Thione Seck woy moom dem jël ko intégré. jiital ko dëgg la Youssou ay magam bañ ko gisee mooy sama xel dafa dal ci ñoom. Mhm. ñu ñu séddee ko place. parce que place kenn kon xel yi dalul fi mu toll nii. xel yi dalul non

ngay gis am na ay trucs artistiques je sais que am na benn rôle boo xamante ne bi mu ko ci def donc vraiment on le félicite et puis mbégte la bien parce que artistes yi dañu soxla aussi ay ñu mel ni Youssou Dieng ci seen direction artistique pour guider leen il a dit tout à l'heure arrangement bi composition bi yooyu yëpp daf ci am solo pour donner vraiment une bonne qualité right une bonne qualité parce que tey Youssou tey su fekkee na tey dafa parce que kii how to ndaje boo gis tey am mm-hmm. kenn koo xamante ni mooy njiitu uh, léegi su fekkee ne ñëpp dañu bëgg nekk jiit um, njiit la niñ koy waxee si olof I think exactly uh, fooguma ne uh, dina mën a sotti mm-hmm. um, gis naa ne aussi um, instant bi dafa am da nga gis ku ànd ak artiste wala ànd ak nit ku siiw benn instant mm-hmm. jéem a moom tamit dem beneen côté bi pour moom tam mu mun a nekk njiit est loolu trahison la walla jàngat la wala am am loo xamante ni la euh, nit ku nekk war nga sóoraale ne kii nekk ci yow moom tamit war naa mën a fël. waaw non xam nga xam nga àdduna. Euh, euh, nit ñi dañuy gunge rek mais duñu àgg. Mm-hmm. suñu waajur yi sax dañuy gunge rek. mais duñu àgg te musique dafa yaatu. Mm-hmm. musique dafa doon loo xamante ni yëg-yëg la mm-hmm. léeg ngay ànd ak nit ci musique di yëg lu Mm-hmm. dafa complexe léeg-léeg ngay ànd ak nit musique bi nga bëgg def bokkul ak moom bi mu bëgg def mm-hmm. tu vois donc euh, liberté mooy musique mm-hmm. liberté boobu ah, euh, te tamit te tamit euh, artiste li koy dundal mooy performe artiste lu koy dundal mooy réaliser bu fekkee ne da nga ànd ak nit tamit dem ba yàgg nga bëgg def dara mais moom moo la war a jàppale sax pour nga def ko mhm. Mhm. dañu waxante dëgg mhm. nekk ñu fii pour di topp ay nit rek Sénégal la lañ bëgg boo ànd ak ñu ne ñu ne da nga koy topp nga xëy wuti ne da nga ko war léegi lan lañ bëgg. kenn xamu ko sax dama am jikko caacaay dama ànd ak journaliste yi. waaw damay yow ma tabaxal. mais loolu tamit est-ce que du la fekk si tuuti parce que xam nañ la ak euh, Wally mhm. d'accord mais tey ñu gis la nga génnee sa clip bu yow kenn di di évoluer damay damay damay domp daal ah waaw. léegi loolu loo ciy wax. parce que parce que léeg-léeg léeg-léeg léeg-léeg nit wax la ne mais mais yow mais Wally. Wally dafa war a créer ay nit. bu wax chaque jour ma wax ko bu créé wul ay nit réussirul parce que liy def euh, réussite Wally Seck mhm. ak mu delloo njukkal musique mhm. mooy mu créé ay xale mhm. man xam naa créé ma sax wees na mais <laughs> yeneen xale yoo xam ne dañuy dañuy dañuy parce que xam nga lu ñu dal ci musique Mado mooy suñu papa yi tamit préparé wuñu woon tegal xale yi yoon wi foo xamante ni. Mm. yoon bi dina yomb ci parce que ñun sénégalais. Mm-hmm. gëmuñu gëmuñu relève. Mm-hmm. que c'est important parce que génération bu ne ak ak la cay xew. Mm-hmm. Euh, euh, il a dit un conflit de génération bi am si ñaar ñi fi nekk parce que booy seetlu aujourd'hui comme il a dit il y a cette ancienne génération am na middle bi ñu nekk si digg bi ak cette nouvelle génération qui arrive donc dafa dem ba jaxasoo ci biir doo xam kii kii alors Youssou foofu laa la bëggoon laajee d'ailleurs bi projet man dama am occasion déglu ko euh, ma ak li ñuy dégg léegi maanaam tendance bi euh, sa direction artistique laa bëgg nga ñëwaat ci tuuti euh, choix wu def ce genre musical là au nga def li ñëpp di def lu tax nga def lu mel waaw jërëjëf jërëjëf Kalsa parce que li tax ma def ko mooy euh, base yu composition musique sénégalaise dafa commencé réer luy base bi base bi mooy chaque dëkk da nga am sa genre musique mm-hmm. bu njëkk da ngay déglu musique sénégalaise rek automatiquement da ngay xam ne lii. from Sénégal. dafa amoon identité. dafa amoon identité. d'accord identité bi euh, du lenn lu nduroo ah. parce que mm. li nga teg fii léegi Thione Seck def ko. mais ñu dem ba benn moment composition bi jóge ci instrumentiste yi. dem ci beatmaker yi. waaw ñuy programmer machine yi ñëw. ñuy programmer. waaye <laughs> so that's tayal daal di dugg. dëgg la ñoom tamit. mais jamono day dox de ah, Youssou. Ah, mais jamono aussi day dox de voilà. mais jamono ah. yi nañ ko def ci suñu rythme. waaw parce que rythme nigérien yi. bokkul dëgg la. nigérien yi ñoo leen gën a. dëgg la dëgg la créé nañ dëgg la. ñun boo dee duggee ci lébu gi am fa téeméeri rythme. wallaay dëgg la dem fa ñaar téeméeri rythme. dëgg la nga benn instant aussi foogu comme Carlos mi ngi ko wax léegi hmm. mooy technologie bi. ak hmm. jamono day dox. Hmm. est-ce que foogu ne artistes yi tamit dañu jàpp comme exemple euh, Nigerian music bi. Euh, mi ngi niveau international. xoolal comme ku ci mel ni Beyoncé exemple tey euh, yokku na ci li nga xamante ni mooy the Nigerian music. Euh, pour euh, mu am benn changement boo xamante ne mi ngi est-ce que fooguloon tamit euh, xale yi comme léegi ñi nga xamante ne même mag ñi sax ah, maa ngi gis seen son yi sax ñu ngi daa laalaale li nga xamante ne mooy afrobeat fooguloon ne loolu moo gën a dox in terms mais loolu lu koy indi du musique bi oh ok lu ko indi leadership ouais. <laughs> music business. entertainment. entertainment. dëgg la. <laughs> music. dëgg la mais Youssou bi dama ko teral. xaalis nga baax na foog ngay ñëw. waxoon naa leen ko de nee naa leen daanaan lañu dara. déedéet dàq yooyu suñu xam. déedéet déedéet déedéet. dàq ñu leen wér. déedéet déedéet. li may wax bon mënuñu comprendre. effectivement. mais lu tax ñu ñu mel ni yéen. Mhm. du ngeen jël les choses vraiment téye ko seen. am ah, mais parce que public sénégalais gëmuñu loolu. ndax xale yi aussi dinañ déglu. Ah, maanaam du xale yi sax c'est le public. public bi la waaw man déjà sama musique boo ko tegee am na ku toog këram naan kii yebaatewul. Mhm. béykat yi daal dañoo bëri. tu vois considération bi war a am. jóge mhm. ci public bi ñëw ci artistes yi moo manqué. deuxièmement musique sénégalaise. dafa amul kilifa. liy doxal musique c'est pas les artistes mais imagine toi amuñu promoteur. Hmm. amuñu producteur. dëgg la. <laughs> mais lu kuy dundal musique. <laughs> mais lan moo war a nekk kon. dëgg la yow la solution. mais est-ce qu'il faut pas faire benn. mais solution bi ma doon du dara lu dul mooy ñu gëm na musique liggéey la ñu investir ci. Hmm. xaalis bu bëri teg ko. Hmm. mais départ bi aussi Macky Sall bu xëyoon bëgg bi yoon sa ñëw fi dafiy ñëw. mais départ bi aussi Youssou Dieng ci artistes yi lay tàmbalee. par exemple li nga doon wax loolu couleur yi euh, euh, arrêté copier yi de temps en temps. mais mais loolu mi ngi fii. xam nga mi ngi fii parce que mënuma comprendre réew mu am réew mu am Youssou Ndour ñu naan mm. musique bu doxul mm-hmm. dëgg la mm-hmm. Youssou Ndour mondial artiste ah, mm-hmm. africain ouais. connu l'artiste bi nga xamante ni il a eu la chance de de de de de faire voyager la musique sénégalaise mm -hmm. donc am nañu une base bu wóor léegi nag li des mooy taaral ko bi nga àndee sa projet bi nii naka la ko public bi accueillir euh, artistes yi la gën neex ak melomaan yi ak melomaan yi waaw loolu gis naa ko ci neex parce que <laughs> parce que ñaari xam nga ñaari ñaari public dëgg la dafa am public boo xamante ni musique la ñuy dundu am public boo xamante ni tendance bi la ñuy ku neex la ñu xaw di waaw waaw man nag comme man li may def sama mop laa ci njëkk bëggal dëgg la ku ma ci fekk rek tubaarkaal la ku ma ci bàyyi ba wéet ci li ma wéet voilà mi ngi noonu Youssou Dieng euh, awa moom it mi ngi waajal guddi gu mag euh, boo xam ne euh, ña nga jëm non seulement Sorano lañ jëm mm. salle bi aussi c'est mythique gis naa ni moom lu muy def rek di ci bëgg a dugal cosaan voilà donc le premier janvier guddi gu njëkk la ñu nar a sargal Ndakaaru mm-hmm. Ndakaaru nag lu jar a sargal la dé waaw awa right li nga xamante waajal comme ni ñu ko gisee nii euh, sargal Ndakaar bi mooy euh, deuxième édition bi euh, gis naa ne si sa si sa concept note bi maa ngi gis ne yaa ngi ne année quatre-vingt ak quatre-vingt-dix mm. ma gis si ki nga xamante ne mooy suñu papa di Alhaji Mansour kii Alhaji Mansour Mbaye exactly right pourquoi the concept nga delloo leen ñoom njukkal waaw parce que xam nga xam nga ci at bi bis yi lay dem te bis bi ñu ko gënoon fonk di ko dem li ci dem mooy suñu yaay donc comme xale yi bëri nañ ay bis mais maire yi foog ñu ko leen ah, bis boo xamante ni maire yi dañuy bëgg. Mm. génnee musoo yi ah, daaw. bi li ma ci gën a neex ah, mooy. ni maire yi ni maire yi kontaane. la mooy que événement bi uh-huh. c'est à. 70 pour cent féminin. macha allah tu vois et suñu yaay yi tamit mën a am ñëw toog waale di way. ñu bégal leen parce que amuñu chance ñoom. di di découvrir waali ci spectacle. donc euh, waali sekk toog di way maire yi di di di yëg na ñoom it bokk nañ ci ci <laughs> waali ah bokk nañu ci xale yi nga xamante ni ñoo xew. Mhm. dafay dafay am solo. solo moo tax euh, ma ma ma def concept. Mhm. alors après. man man daraay tey safuma yow awa. démb rek démb rek ah tey tey waaw day kontaan yu ñàkk maanaa yi te xam nga Youssou dafa bëgg cosaan mais performance su album bi euh, kañ lañ koy gis parce que quand j'entends le son la ah. qualité j'ai trop envie de le voir en live très bien waaw jërëjëf waaw mais euh, créé leen ko yéen euh. lu war a am la de. buuba maa ngi koy woo mën nga fa jot. kii da koy invité. voilà émission boobu invité xaw ma invité d'honneur. waaw mu ñëw ñu laaj. Kalsa da ngeen di ko laalal benn invité d'honneur. balaa balaa balaa may jaay. waaw ñu testé ba xam. ñu testé ba xam xool. alors waaw fu fu fu album bi toll mi ngi jël yoonam. waaw gis naa ne mi ngi ci yenn plateforme yi. mën nañu ko dem déglu daf ma manqué woon juste euh, quelques bon quelques morceaux. Mm-hmm. mais Dieu merci pare naa ko. Mhm. Ah, parce que xam nga xam nga composition nag moom booy def euh, album mhm. euh, tendance la. da mhm. ngay xool ñi nga ñi war a touché cible yi. léegi am naa mag yi. waaw ah. ah, <laughs> ndax ci lañ bokk waaw ndax ci lañ bokk dëgg la bon mooy mooy xam nga mooy li ñu wax dañuy. jamono. am na solo. waaye warul tax nga bàyyi ko sax. tu vois. am naa cosaan léegi nag xale yi moo ma dese woon. Mhm. Ah, je pense que euh, mos naa ko laaj Mbaye Gueye. Mhm. mais dama la ko bëgg laajaat yow mi nga xamante ne euh, bëgg nga génération mère yi. Mhm. mais en réalité suñu génération ñun nga bokk. Ah, buzz. si music. ndax loo xamante ne la c'est très important parce que man ci sama definition of buzz. li ma xam ci buzz. mooy benn moment la beneen bu ko gën a tàkk mooy ñëw donc est-ce que buzz euh, vraiment. vraiment day day identify li nga xamante ni mooy euh, music. excellent non it's just up to dafay dafay des ci. dafay des ci fa artiste bi toll. tu parce que bu ñuy wax buzz dafa am luy tax. Mhm. par exemple nga jëm ci nga jëm ci événement. Mhm. ñu gëj la gis. Mhm. wala nga gëj a génn. nga ne xaaral ma créer loo xamante ni dina ma delloo si. façon buzz yi mais mais bu mu baat quoi. baat buzz moo baax bu mu baat parce que. bës bëri na façon. Mm-hmm. fexeel ñu yëg ne rek. tu mm-hmm. existes. effectivement. that's it moo ci am solo donc donc mën nga ko créer. waaw mën nga ko créer mm-hmm. mais ci positif. donc ci la bokk quoi ci la bokk quoi ci la bokk parce que. pas de bad moom loo xam ne day tax nit ñi tiit nit ñi jaaxle di woo say di jaru ko quoi tu par exemple. ma maa ngi def événement. mais mais buzz mais mun na yem ci. ñëw fii de ku woote ma may la million mm-hmm. <laughs> ah. ku dugg mu positif posé question ñu xam ñu ñu ne ah diw la tu vois mm-hmm. mu positif. Mm-hmm. tu vois mais bu fekkee ne dafa baat. day dem ba yóbbu ci boo waxatee nit ñi duñ ko moo waral moo waral sax concurrence bi ñuy gis. léegi des fois mu xaw a déborder un peu. xam nga dugal ci yoo xam ne bokk ci. alors que li koy tax a jóg ñoom bës rek lañ ciy bëgg. te li muy yàq boo moytul mooy ëpp sax li mu li mu. li mu ba pare di nduroo nduroo bi moom a gën a mel. waaw dafa da ñaar benn artiste fan yii ñu ne artiste bi marié la. Uh-huh. ak benn. célébrité. waaw. Ah. Mm-hmm. beneen artiste ñëw. defaat la même chose ouais. question la. benn bi mhm. peut-être c'est resté ci euh, album bi. Mhm. parce que léegi da nga nekk pare na. Mhm. donc yan sonorité nañ ci mën a xaar ci même tempo bi wala dinañ ci xaar aussi ay featuring. et puis après peut-être delluwaat ci beneen question bi mooy un peu sur ton événement ndax gis naa nga tudd ki nga xamante ne moom nga bëgg euh, sargal. mooy ndeysaan Lamine Nar Diop tey boo mënoon wax ci moom tuuti waaw. yaa am maanaa. question yi bii sax. wallaay ndax question yi fi jiit yëpp yee cëpp. ndeysaan ndax euh, El Hadj Lamine Tafsir Xayaar. ndeysaan. c' des artistes. dëgg la c' des griots. Mm-hmm. Euh, musiciens yi ñoo war a ñëw defar bis bi. Mm-hmm. muy Youssou ak ak ak ak muy waa kër Thione ndax boo demee kër Thione Seck la mu naarog fay judd moom la duppee taaw loolu nag dafa am lu tax ndax olof dafa lépp ne njëriñ euh, ngërëm dañ koy jënd dëgg la Lamine dafa nekkoon ci réew mi Alaaji Naar Jóob jur ko ëmat Lamine ëmat Lamine Dagana jur ko muy nit ku am jub mm-hmm. waaye fexe ba ku ne mu lebal la teraanga mhm. ku ne mu lebal la mbaax mbaax googu mu aye miliyama ula ah anice anicera ah anice nit ku ne am nga yow ñi la yàlla boole sooy dox yow booy dem ñoom dañuy téye xamuñu lu ñu leen mën a bégalee ngir ngeen kontaan ak def nit kuy defar la nag ah, nit kuy defar la day gis ñaari nit yoo xamante ni sax xëy na neexoowuñ mu jël téléphone am woote a def donc loolu ñu la ciy gërëm et puis j'ai j'ai même envie de dire mais Youssou des fois del woo xale yi ci saal waxtaan ak ñoom <laughs> parce euh, mu waxtaan ak nit mu ne ma Youssou moom wax lii ma defee nii ma doxalee nii te loolu dafa important mm-hmm. am kilifa wala mag ñu mel ni ñoom euh, xam nga nag kilifa du ci âge mm-hmm. voilà ci jëmm la ak ni ngay dox doxalee donc loolu Youssou je tenais vraiment euh, def témoignage boobu ci yow te euh, nga sax ci parce que soxla nañu loolu voilà dinañ ñëwaat léegi léegi ci événement bi balaa ñuy jeexal fàttaliwaat ni que y a d'autres événements week-end bi ñu ngi jëm ci combat bu am solo mhm. euh, diggante Modou Lo ak Ama Baldé Pikine ak Parcelles defe naa yëngu na fi mu nekk nii voilà moom la Sénégal yëpp di waxtaanee j'ai pas bëgguma leen laaj sax fu ngeen far nañ bàyyi ba yegg ci rek mais xam naa ni combat am solo la de waaye <laughs> <laughs> Mado Mado bis bi imagine ko rek. da ngay da ngay xam ni bés la ay chair de poule ndax ndax nit ñi gëmuñu woon ne mën na nekk. d'abord yàlla dimbali ñu ba nit ñi ko laay réaliser ko. ànd ceeg Baye Allé. yaay sama xarit. ànd ceeg TFM. jërëjëf la TFM ndax lii. war ñu seetaan sax cat di ci dugg. dëgg la waaw ndax bis bii. bés la de. arbitre siffle rek génn diggante Modou Lo ak Ama Baldé. loolu yàlla na ko ñëpp ñaar. Youssou Dieng fi ma ko la non loolu. Youssou Youssou Youssou fi ma ko laal nii dama xam ne da cee mën a. Ah, waaw mais fu ne. <laughs> Youssou moo tax ma ne ko bés bi bés bu rëy oh. voilà donc euh, dinañ ci ànd ak télévision Futur Média wax naa ko tout à l'heure événement yu mag yi euh, dañ ciy ànd ak yéen non seulement dinañ ko def ci euh, télé bi mais rajo bi également mm-hmm. ñi ngi ciy waajal à partir de veille bi dinañ leen gunge mm-hmm. ngeen ngeen mën a dund combat bi incha allah dimanche bi ñu dëgmal la am na yeneen i événement yoo xam ne ñu ngi koy waajal Kéba Seck mi ngi jëm Sorano moom defe naa suba la ma nga jëm mm-hmm. Sorano ànd ak la maison des gardes du ak Bamba notre ami Seck également qui se euh, qui donne rendez-vous moom it xale la boo xam ne mi ngi ci yoonam voilà di def liggéey bu am solo Youssou Dieng euh, muy Bambali donc moom mi ngi ñuy woo eh, eh, voilà jàmbaar la jàmbaar la donc moom ma nga jëm gaynde euh, hmm. tàmmal nañu ko sax mais vendredi bi lay demaat gaynde 3 donc ñu ngi leen di invité ngeen ñëw assister cet événement beneen boo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy waxtaanee muy les 30 ans de Alioune Mbaye Nder ah medley bi dégg ngeen ko ah, mu def ci lu doy waar waaw ah, waaw réalisation bu rafet ànd ak xale yi ci naay sax mhm. man loolu moom a ci neex quoi mhm, le fait que ñu comprendre ne mooy li ma doon wax sànq il faut mhm. xale yi ñu jox leen loxo dëgg la parce que wayloo xale yi dina tax xale yi xam euh, ana fan mooy yoon bi dëgg la dëgg la euh, de de de de euh, ah, jaar ci Wally Seck ba ci Dieyla génération yi génération yi waaw Ngaaka Blindé Ngaaka ah, Blindé style yu wuute yi ah Sidi Diop ah Samb ah, vraiment euh, Momo Dieng que je félicite ndax partem daf may daaneel waaw leneen la loolu ah, waaw daf beneen affaire la <laughs> voilà je vous dis album bi nag euh, finalement euh, dina génn awa le 7 bi ñu jëm parce que medley bi extrait woon rek la mais am na yeneen six titres yoo xam ne Alioune Mbaye Nder yu bees la réaliser ko biir Prince Art donc ñoom ñoo ko produire cet album mu war a génn le 7 2017 incha allah Alioune a ngi koy xaar. ñëpp a ngi koy xaar euh, ndaxte man xam comme Gambien laa. Mhm. waaye Alioune Mbaye euh, bokk na si artistes yoo xamante ni Gambie dañ ko bëgg torop mhm. comme ni ñu bëggee Youssou ni ñu bëggee ay ñoom euh, Baba Maal ni ñu bëggee artistes yu bëree bëri moom nag mu nekkoon koo xamante ni at his generation. Mhm. tegoon na tànk torop comme Sénégal comme Gambia waaye comme su delluwaatee baax delloo ñu ñun jeunesse bi li nga xamante ni mooy njukkal parce njukkal la mhm. parce que 30 ans de carrière déjà ah, mhm. xam nga comme ah, bu muy commencé la mais comme dafa mel ni dafa yàgg si musique bi ëpp na 30 euh, bi nga xamante ne mi ngi ci musique kon boo ko bu ñu delloo njukkal mhm. euh, defe naa ni ak képp koo xamante ni ah, jeune nga parce que ñun ñooy avenir suba euh, di nga ci gis sa bopp kon boo ko ñu ngi koy xaar bu baax a baax jeex na beneen sortie boo xam ne gars yi nag fan yi dafa mel ni seen yaram dafa tàng plan B c'est le prochain album oh, de Adiouza oh, Mado ah ça dina disponible moom it demain Effectivement. Euh, Adiouza, très attendue par le public. Et eh oui, par le public. Je pense que elle a fait une très belle communication boo xamante ne mi ngi koy waajal te lépp dina ko tënk allah euh, ce 4 normalement. fi nga xamante ne ce 3 voilà. parce que pour mu def genre showcase pour expliquer un peu euh, lan la bëgg wane ci li nga xamante ne moom moo di plan B bi en tout cas on l'encourage man Gueule Pao je l'adore. donc gars yi nañ dépp dem reetaan mm. papaam waaw bu ñu waxee ousa wax ajousa c'est normal mu mu toll fii ci musique waaw ndaanaan la euh, par euh, sa justesse mm. ah. euh, ba pare li mu jot a wone ajousa mm. amatul lu muy prouvé. Ah, wax dëgg yàlla. ndax li muy def teg na ko ci yoon. mais loolu rek la mën a def. dëgg ah, ndax kër ga mu juddoo la. ay magam di ay musiciens yu mag a mag a mag. Mm-hmm. xam nga papaam daan na ko def ak génération yu. yu bëri yu def ko ci Sénégal kenn xamul mu toll. ah Mati Thiam Dogo. ah Ouza ak ak eh, mais mais mais oui la euh, ndeysaan euh, waaw walaay Mado. ah Sula Ndiaye. dëgg ah, euh, oh. ah, ak tant d'autres. yoo xamante ni créé na leen. donc Adiouza lii bettuñu ci moom. jeex na di ko ñaanal. Mhm. Ah, ba pare di wax public bi coow li coow li public bi. walaay dëgg la walaay dëgg la. dëgg la nañuy consommer alcool xale yi ngi góorgóorlu. walaay walaay nañ jàppale. artistes yi coow li coow li public bi la ak les animateurs. dëgg la dëgg la que. di animé teg ñetti woykat la sax. walaay la musique sénégalaise. yu si yegg nii foog mu jaaraat fi ah de. ay tur ak ay <laughs> xew-xew. artiste la dëgg la boo demee tey Amérique Mike mhm. a la a de vie bi macha allah dañu respecté artistes yi. may xale yu chance di leen promouvoir. Mhm. da ngay yónnee animateur mi morceau du ko teg. walaay walaay walaay nañuy déglu. waaw tey tey tey naan kii xew ak dëgg la walaay wax na dëgg ah, à préciser voilà Massimado c'est le 4 ah King Fahd Palace mais sortie bi mooy le 3. effectivement voilà sortie bi mooy le mooy le 3 merci beaucoup donc Adiouza euh, ñun ñëpp dinañu ñëw gunge ko. parce que moom daanaan la euh, ci sortie album bi nga xam ne on a tellement envie d'écouter lan la liggéey et puis loolu ko xam incha allah ëllëg et le 4 ñu dem King Fahd euh, ba tey ci nga xam ne mën nañ ko bàyyi xel ci week-end bi wala dans les jours à venir am na benn caravane bu ñu dippee caravane de la paix. Mhm. Mado dans les 19 communes de Dakar. Mhm. ñooy dajaloo nag pour def benn caravane boo xam ne ce sera du 5 euh, 12 novembre euh, tous pour la paix au Sénégal. effectivement comme ni nga ko waxee tous pour la paix au Sénégal mu nekk caravane boo xamante ne gox bu nekk euh, dinañ fa dem incha allah waxtaan ak li nga xamante ne moom moo di askan wi ak population bi par rapport ak tolluwaayu euh, fi réew mi toll surtout nag bu ñu wax sax peut-être dinañ xalaat ni politique la euh, ça n'a rien à voir avec une connotation politique mais par rapport ak li xew léegi. ci jamono jàmmi réew mi donc mhm. je pense que ñëpp war nañ ca adhérer ñu ànd ci nag ak mairie bu ñu dem rek ca gox ba ñoom itam ñu bunge leen ñu fas yéene toog waxtaan saytuwaat wut ay solution jéem indi lëkkaloo euh, ñii nekk ci parti bee wala ñii am ay euh, lu mu ci munti doon daal ñu xàccandoo dóorandoo jàmm am ci réew mi parce qu'on en a besoin surtout nag euh, période yi ñuy dëgmal fi nga xamante ne moom moo di élection yi. macha allah donc jàmm foog mu am ci réew macha allah alors nos Sénégalais également qui sont en, en France l'artiste Tchéky Blaise qui a un événement le 9 décembre à France oui qui fait la a amee Paris artistes moom mi ngi ko nar a def le 9 décembre euh, voilà une date à retenir dinañ ci dellu soit sax euh, pour cette sortie daal ba mu waaye fàttaliwaat leen rek euh, xëy na sax fàttewu leen waaye bu leen fàtte ni dañuy sargal Ndakaaru le 1 mm. janvier voilà guddi gu mag gaa ngi noonu ñu nat ci ànd ak Youssou Dieng mi nga xamante ni moo ñu proposé cet événement li ñu dese ci waxtu bëriwul Youssou bëgg naa balaa ñoo jeexal Euh, ñu wax tuuti peut-être ci euh, ce qu'on appelle faire une musique ou un album international est-ce que euh, vraiment quand tu fais un album da nga war a wax ni album bi album international la <laughs> wala da ngay liggéey rek bàyyi ko mu dem hmm. précisément non waaw mais habitude la yu ñu am rek hmm. ah hmm. te nag habitude yooyu moom xam naa ne mu jug ci suñuy xel dootul yomb ah. ba pare lu ci ëpp tamit gars yi ñoo ko defoon ci ci mhm. xelu public bi tu vois di wax album national ak international mhm. mais communication la boo xamante ni dafay tax par exemple euh, waa national duñ ko mhm. duñ ko duñu boole duñ ci boole seen bopp donc baaxul ci communication parce que musique musique pour ñëpp la dëgg la tu musique yi ñuy déglu te te du Sénégal ñu koy def bañ koy def euh, mais ñu ci kenn. dëgg la mais ñun Sénégal suñu cat mooy. <laughs> suñu musique dañ ko bëgg a génne Sénégal dem jaay ko feneen. <laughs> te loolu ça n'existe nulle part dëgg la dëgg la mais exemple bi ma ciy jël rek mais xoolal diggante Sénégal ak Gambie par exemple. Mhm. on écoute la même musique. Ah. on a les mêmes artistes. et pourtant ñaari dëkk yu wuute la mais li ñuy déglu ak li ñuy def yëpp. benn la ñoo bokk awa mais ak Mauritanie. waaw gis nga <laughs> ñoo bokk li ñuy cons. est-ce que ah. xam nga euh, Gambie li muy déglu musique sénégalaise déglu ko sax euh, musique bu boppam. gis nga you know euh, comme comme waxoon naa ko si benn émission. je pense mhm. que semaine passée la mhm. ma ne tey. Gambie dafa jouer ci euh, carrière musicale bu euh, bu Sénégal bi nga xamante ni man je pense que de euh, aussi Sénégal bu xawee mm-hmm. delluwaat tuuti mm-hmm. jàppale musicien Gambie pour que mm-hmm. ñoom itamit ñu gën a mën a dugg fii mais ay ndaanaan aussi yàgg nañ jógee Gambie Moussa Ngom Moussa ah, Ngom Jaliba Kouyaté waaye je pense que ne um, génération bi génération bi comme ku ci mel ni ñoom Youssou ak ñeneen war nañoo mën a gën a Mm-hmm. su ko defee ñu mën a ñu mën am na may liggéeyal maa ngi nuyu Sol Sow de partage. Sol yeah oh moom tamit dafa yàgg. Euh, strival bi nga xamante mooy euh, artiste Gambie. Ah, Sol Sow vraiment euh, mi ngi ciy def ay jéego yu am solo. ñu ngi ciy liggéey vraiment te lu jaadu la. Mm-hmm. Sénégal dañu war di di di di di mm-hmm. organiser. parce que loolu mooy doxal musique. tu vois. nañuy organiser parce que organisation dem nañ ba tey artistes yi ay mado yi ñii ñooy organiser. ana promoteur yi waaw amul promoteur. <laughs> ah ana promoteur yi Alima Ndione a un événement. ah oui ah, le 8 décembre. le 8 décembre Alima Ndione waaw. ah séeréer bi event sama ngoog foog nga nii. Ah, Alima foog mu jaar ah, fi ñu waxtaanee woon voilà ah mi ngi koy defee Sorano jël titi. ànd ci ak titi ak Kéba Seck euh, ah tu vois. Mm-hmm. léegi bu ñu demee ba ñi ñi ñu war a jël ñoo mujj di organiser. Mm-hmm. mais mais y' a problème. <laughs> waaw y' a problème. Gambie <laughs> teranga ji ñuy defal at bu jot ñu invité diggante artiste sénégalais yi. waay nañ leen fay bor bi. yow yow benn conseil Kaaw. I'm sorry benn conseil rek booy jox euh, euh, artiste gambien. lan lay doon ñoog Sénégal ñoo koy bokk. Ah. xam na moo tax ñu ñu ñu ñu am problème ci afrobeat bi. Mm. dañu dañu bàyyi suñu ay rythme di di di follow nigérian rythme bi. Mm, te c'est pas normal. Mm, tu vois. te munoo fekk lu nit créé ba pare. nga bëgg ci jommale. Mm-hmm. loolu munul nekk. on a des rythmes. Mm-hmm. ak ñun artiste day def recherche. Mm-hmm. nu ñu dugg ci àll. gëstu waaw boo demee Casamance. mais boo demee Sine. mais sonorité yi ah, dafa bari. mais sonorité yi donc afrobeat bi. même bu fekkee dañuy def afrobeat nañ ko def ci. suñu ay rythmes ah. Ah, soose yi dañoo ay rythmes yu extraordinaire. biib boobu biib waaw. kora. gàmb fekk baax. tu donc bu ñu ko defee noonu ba pare def ko à la sénégalaise. Fatick rek boo fa demee séeréer yi. boo fa demee bay ah. ah, leneen ngay dégg. dañ ko def à la sénégalaise. naa ne yow suñu jotaay bii dinañ ko amaat. voilà parce que am na solo de temps en temps ñu waxtaanee musique tuuti il est important euh, di nuyu bu baax également Bamba Partout Voyage qui nous qui ah nous regarde en même temps en même temps Bamba Partout Voyage euh, mm. voyager en toute sécurité ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko gërëm euh, Pisco Pisco sama benn xarit la bu nekk Istanbul mi ngi leen di mm. nuyu yéen ñëpp borom Turquie mi ngi koy béggee bu baax a baax baax qui nous regarde moom it euh, ci euh, suba si kontaan bu baax a baax euh, ni ngeen ànd ñun xanaa ñu profiter rapidement rek si vous avez des anniversaires ci natif ñu souhaiter leen un bon anniversaire ci bésu tey bi Abdou Khadri Diagne voilà moom depuis Tëngéej également on lui souhaite un très bon anniversaire mais je souhaite également un bon anniversaire à Oumi Samb Oumi Samb c'est de la part de de de sa de sa sœur donc ñu ngi koy souhaiter un très bon anniversaire voilà di ko béggee bu baax a baax baax Oumy Samb ami d'enfance Amina la voilà muy Oumy Samb ñu ngi koy béggee bu baax happy birthday santé prospérité et beaucoup de bonheur ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax euh, ci euh, bés bi tey oui Mado alors je voudrais juste euh, souhaiter un joyeux anniversaire je m'associe à toutes les personnes qui l'aiment à toute la télévision Futur Média RFM Awa Gueye pour souhaiter un joyeux anniversaire à Kals Kals sunu Kals national le grand animateur doté d'une générosité d'une gentillesse et d'un professionnalisme vraiment ñu ngi lay ñaanal gudd fan wér nga bëgg a yëgal anniversaire ñëpp tëb sa bopp waaw yu su waxal ak kii waay sa bopp <laughs> ah waaye nag kuy séddale yaay mujj yaay mujj yaay mujj ñu ngi koy ñaanal gudd fan wér Calze vraiment euh, animateur yi jug leen artistes yi jug leen ndax euh, ku ñu war a sargal la moom ñu war a njukkal mm-hmm. ndax mi ngi daj ay coono ngir promouvoir la musique sénégalaise te bokk na ci ñi néew ñi nga xamante ni mhm. ñëpp lay déglu ah ñi amul paas mhm. ak ñu amul yóbbal sax da leen di déglu réew mi dañu mën di déglu ku am paas ak ku koy joxe donc euh, joyeux anniversaire jërëjëf Kalz ñu la daal gudd fan wér at bu yokk seet at bu naataange ah mu neex neex ba nga yëg na neex neex ci fànn yëpp jërëjëf man yàlla fa def man dama la fan like I love you euh, euh, and ñu ngi foo soog a bokk plateau je me rappelle benn bés woo nga ma téléphone musuma la woon a gis it was the first time nga ne ma ne um, jàppal ne ñoo ñoo bokk day bokk baay you get it euh, taxaw euh, mm-hmm. ne um, liggéey bi ngay def dafa rafet même si que ni um, maa ngi góorgóorlu mm-hmm. mais di ko dégg si ndaanaan bu mel ni yow ça fait plaisir dama lay ñaanal nag wér amiin gudd fan ak jàmm ju bëri amiin amiin amiin amiin amiin ça fait plaisir amiin jërëjëf amiin amiin je vous adore tous yéen xam ngeen loolu sax donc di leen gërëmaat bu baax euh, Pape Samba xanaa ñu nuyu rek wadd docteur ah drone on le félicite beaucoup ci formation yi nga xam ne mi ngi koy def ci wàllu drone mhm. donc qui donne également la chance aux jeunes surtout nekk Sénégal donc merci beaucoup mhm. di ko euh, bu baax a baax a baax Wade Wade docteur drone mhm. voilà béggee nañ la donc euh, euh, daanaka waxtu bi jeex na fàttaliwaat leen rek incha allahu rabbi guddi gi nga xam ne ñu ngi koy waajal ak Youssou Dieng dinañ ci amal yeneen jotaay parce que janvier des na di remercier suñu sponsor également Madou ah yéen waaw yéen VAT mi moo ñu gunge boobu sax pour tout le monde képp koo xamante ne da nga am problème mu yaram mun nga ko utiliser ndax li ñu naan moom mooy daw bi gën donc yelloo waat euh, bërëb boo leen dem rek euh, mun ngeen ko fa am. jeex na Youssou Dieng ñu ngi lay gërëm bu baax. yan kàddu ngay tëjee. waaw mais kontaan rek euh, Kalji di la encourager. jërëjëf ah, ndax tey ku ci ne yaa ngi wut. pour sa bopp. ku ci nekk yaa ngi wut dara ci musique mhm. mais kenn xeexalul musique dëgg la donc yow mi nga xamante ni yaa ngi ci euh, def ay jéego. yal na la yàlla may. Euh, kàttan bi. Mhm. Ah, ba nga réussir ko parce que bu réussir rek. Euh, ñëpp ay réussir. bi nga ubbee émission bi danga teg ay animateurs. Mhm. boobu dañ doon promouvoir la musique ñi ko doon def ñi jóge nañ si ñenn ñi sont devenus des stars. Mm-hmm. amatuñu jot bi. Mm-hmm. donc na ñeneen ñëw. Mm-hmm. ñi fi ne ñi ngi fi sax ñi ngi fi. mais euh, ay pat par loola. ak ay féete. te warul dane noonu. musique dafa war a am équipe boo xamante ni. musique rek ko ñor. équipe boo xamante ni musique rek lay lay promouvoir. donc euh, loolu rek lañuy ñuy sàkku. et yàlla na jàmm yàgg. jërëjëf ñu nuyu ñëpp nuyu ma famille. ah ma femme mes enfants à Chicago ah di leen béggee ah, di leen big up bu baax a baax a baax a baax di nuyu Assou Mbaye nag jëriñ woon. sa doomu ndaw Sarako aussi mi ngi lay nuyu Padros. waaye Padros waaye Mbaye Dogo Mbaye Dogo maa ngi nuyu. waaw Dogo ah, moom ndey la ci bis bi xam naa ne. Mhm. bu ñu tàmbalee rek dina xam ne ndey la. waaw xale bu am jom. ah. Euh, fonk ndey fonk néegi ndeyam. Mhm. fàttewul démb. ah ñoom àndoon ak démb ñoom la àndal ba ba ba tey. ba tey loolu yombul. jërëjëf donc yàlla na ko yàlla defal jàmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci ah, beaucoup neex a fekk Genève. jërëjëf Youssou kontaan nañu euh, ci kàddu yi ni mu rafetee ak dal bi ak expérience bi surtout il parle avec beaucoup d' expérience te loolu it dañu koy soxla donc ñu ngi lay gërëm Awa c' était un réel plaisir de partager ce plateau xam naa ñu jox te téléspectateurs yi incha allah jeudi prochain mais bég naa lool ci àndoon ak yow lan ngay tëjee. Euh, ngi noonu euh, thank you euh, xanaa di ñaan Youssou rek temps en temps peut mu def benn live sur TikTok. Mhm. pour joxe ay conseils si li nga xamante ni mooy artistes yi wala bu gisee benn artiste génnee benn son. Mhm. mu daal di dem si TikTok bu joxe li nga xamante ni mooy idéem ak lan la war a yokk wala lan la mhm. war a. waaye am naa jot bu sax Sénégal dafa naqaree waxee waaw. parce que yaruñu <laughs> dëgg la de réew mi neexu la waaw neexu la waxee. neexu la ko man ñeme public bi. Mm. ñoo ñoo ko tàmm. dëgg la ah boo demee dafa am lu ñuy wax Apollo show. Mm-hmm. Mm-hmm. Apollo show mais euh, Lauryn Hill dafa dugg ñu dàq ko. ci la dem jàngaat ñëw jàllaat. Mm-hmm. Ah, tu vois donc il critiquer mm. pour am une bonne musique mm. mi ngi noonu ah, dinaa ci dinaa ko tàmm waaw mi ngi noonu <laughs> ah, kon euh, di leen euh, joxa euh, di daje rek xam ngeen ne tàmm ngeen si man chaque jeudi ma daal di leen indil santé wala femme kon jeudi prochain incha allah dañuy reprendre rek xam nga démb férié la woon. moo tax tey élément bi ñëwul. waaye di leen jox dig daje mardi incha allah ànd ak Madou. si astuce yi nga xamante ne oh, in my kitchen si sa si sa biiru waañ foofu la foofu ngay defaroo si sa foofu ngay defaree sa yaram at the same time defar li nga xamante ne mooy sa wér gu yaram donc everything is in the kitchen mais remercier bu baax a li nga xamante ne ñooy waa Edu Luxe si perruque bi ma takk mun nga leen a woo ci 78 455 91 91 di remercier sama équipe bi yëpp Mohamed mention spéciale à toi merci beaucoup guys I love you. merci beaucoup Awa Gaye Mado. oui yow moom dama la ma sonn ci gërëm bi sax tellement ma lay su may tàggatoo ak yow dama bëgg mu jeex. wallaay xam naa loolu thanks I love you so en tout cas euh, maa ngi nuyu waale euh, Omar Cheveux moom itam sama doom jooju nee moom it mi ngi lay invité ndax defe naa dafa tijjiwaat beneen boutique boo xamante ne spécial pour jaay cheveux en gros donc loolu du ñàkk dinañ dem ba foofu waxtaan ak moom tegal ko Futur Média voilà ndax moom yàgg na ànd ak euh, télévision Futur Média ci compagnonnage mm-hmm. alors may remercier toujours équipe Glam by Mado donc ci perruque Monica bi merci beaucoup képp ku ci bëgg rek mën nga ko commander au 77 552 39 78 et puis di joxaat dig daje incha allah téléspectateurs yi mardi prochain et puis mbégte la woon àndaat ak yow Youssou ku la sopp la macha allah et puis Kalzo euh, moom du ma ci wax l' équipe technique. Euh, oui Pape Samba Koba sama doomu xol ak képp koo xamante ne yaa ngi àndoon ak ñun. macha allah merci beaucoup ñu ngi gërëm bu baax équipe technique bi ñu àndaloon Ibu Diouf euh, merci beaucoup di bu baax Tanor également di bëggee gars yi nekkoon ci ginnaaw yëpp mention spéciale. Madiké Eva merci à toi Khadija qui coordonne également moom xam nga du sonn ci liggéey bi donc Khadija ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Pape Samba le grand réalisateur di la béggee bu baax a baax voilà donc Binta waa régie yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu nekk Almadi également merci beaucoup à tout le monde ñoom imam ñoom ñëpp ñu di béggee bu baax a baax a baax merci beaucoup xam nga nag ñu nekk régie li may wax yëpp ñoom dañ ci am xalaat dañu ils sont super doués ci loolu am ci expérience lu ma teg ci musique rek ñu décortiquer ko ñoom aussi donc ñu ngi leen di béggee bu baax merci beaucoup à Tanor merci à tout le monde restez en de la télévision Futur Média yoo xam ne denc nañ ko rawatina nag week-end bi ñu jëm mm. regardez di ngeen dund lu ngeen musul dund ci combat de lutte ak télévision Futur Média merci beaucoup on va se quitter avec un titre de Youssou Ndour toujours ci souvenirs yi ñu déglu ko et puis seetaan ko déglu ko seetaan a à bientôt incha allah